sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi nañu ñëw tuuti si li nga xamante ne moo xew fii ci muy référendum bii weesu bi nga xamante ne nguur gu tële bi nga xamante ne ñoo yore réew mi ñoo jugoon pour imposer ko sénégalais ak sénégalaises yi lii waral ne référendum bi échec la mooy liñ naan tentative de confiscation bi ñu def mooy achat de conscience fraude affaire ethnique bi nga xamante ne dugal nañ ko ci wàllum référendum bi corruption ak yàq ay milliards yoo xamante ne tey saafaroon na jafe-jafe étudiants yi milliards yi saafaroon na jafe-jafe étudiants yi milliards yi saafaroon na jafe-jafe enseignants yi milliards yi saafaroon na jafe-jafe électricité si monde rural bi milliards yi jaafa saafaroon na jafe-jafe baykat yi ñu jël ko def ko su loo xamante ni ab lobbying la ñu làqatu pour imposer ñu référendum bi Sénégal yëpp toog ñi nga xamante ne tey ñoo mer taxaw lànk si doxalinu réew mi ak doxalinu Macky ak sa coalition doom de paille ñu ne ñoom ñoo lànk du ñu voté ñenn ñu nangu dem ànd ak moom dem voté wii te wii yooyu xam nañu que l'histoire retiendra politique lañu nag kon nit ñi nañu xam ne askan bi ñuy xam nag ne Sénégal jóg na tey ñu taxaw jëlee fi njuuma fi nekk ak i nitam yu mu àndal pour ñu jóge fi te jot na nag jumbóori abale réew mi il est temps à ce qu'il quitte le pays xaw ma nag nu muy jógee mais jot na may ñaan opposition bi nañu bonk ñun ñëpp doon benn say jëlee fi ko fi nekk parce que taux d'abstention bu faible bi wane na ne askan bi dëdd na war na ko lii rek war naa mën a tax Macky Sall ak i coalition doom de bàyyam organiser le plus rapidement possible des élections anticipées parce que les Sénégalais sont fatigués encore une fois Thiès nag commencé nañoo tàmbale pour wax ak nit ñi pour préparer élection législative yi nga xamante ne moom lañ jóg pour opposition bi mun a par rapport à sa je vous remercie